mbokk yi ñu di nuyu ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bisimilah ci xibaar bar gi li ci gën a fës te ñu am yéenay faram-fàcce ko bokk na ci kaddu yi nga xam ne ni Ousmane Sonko yëkkati na ko daal di koy jëmale jëmale ko ci ki nga xam ne ni moom moo di euh, Amadou Ba mi jëwriñ ji dénk wàllu finance ci nguur gi euh, mu jëm ci lempo yi nga xam ne ni moom la ñu tekkoon ci payoru député yi. Euh, ndax kenn ku ci nekk yaa ngi fayeeku lu ci toll ak benn million ak lu teg ci suñu ko par Euh, te ñu ngi teq ci seen payoor lu ci tolloog ñetti téeméer ci ay impôt ci jamono jujulee fonctionnaire bi nga xam ne nii mu ngi fayee ko weer wu nekk lu ci tolloog juróom-ñetti fukki junni euh, ngi koy teq ci euh, impôt lu ci tolloog fukki junni ak ñeent mu na ab écart bu doy waar yóbbee Ousmane Sonko yëkki ay kàddoom di koy métti lu ci biir xibaar yi da ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal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 Euh, bisimilla ci xibaar yi njàq rek tiis moom la askan wu dëkkee fële ca bustaan ca kaw la yeewoo ci bésu tey jilee euh, gannaaw daal ba ñu ñëwee fekk si euh, mu faatu ci néegam benn soxna la ba fii nag xamaguñu lan moo ko faat waaye nag ñu jàpp ne ñi daal di alkaati ubbi nañ ci mbirum ab lanket ngir xam ndaw soosee nga xam ñu ngi ko fekk ci biir néegam mu faatu an moo ko rey loolu yi kon daañu ci dellusiwaat ak suñu naataango bi di Alassane Ba ñu dellu wax ci kàddu yi nga xam ne ni Ousmane Sonko yëkkati na ko keroog ci ndaje mi doxoon ci diggan député yi ak amul Amadou baax mi jiwriñ ji dénk wàllu finance ci nguur gi moom député Pastef li ni euh, dafa samp sax ab laaj jébal ko ministre bi di sàkk ci moom ngir mu gind ko wax ko euh, lan moo tax député yi ñuy teqa ci seen i payoor lu ci tolloog ñetti téeméer mu euh, téeméer mu doon ab impôt ci ñoo xam ne ni seen i payoor mu ngi toll ci benn mi ak lu tekk alors que ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañu tey fay ko juróom-ñetti fukki junni euh, ñoom ñu ngi leen di teq ci impôt lu ci tolloog fukki junni ak ñeent muy na ab boo xam ne nii buñ ko doon xayma mu ngi toll ci fukki junni ak ñett Kajali Gassama doon koo xam ne nii xam-xamoon daf ci kon ci wàllu kooku moo dafa jàpp ni euh, lu jëm daal ci député ak seen avantage lépp daal mu ngi aju kon ci ab loi ab loi daal moom mooy fixé loolee euh, Kajali Gassama ñu teewlu ko ci téléphone xadisi la Ousmane Sonko moom euh, en ce qui concerne bu fekkee ne domaine euh, impôt la fiscalité moom fiscaliste la yàgg na wax affaire fiscalité mais ci wàllu député ya waxam nag euh, bare na ci ndax am na ay jamono mi ngi doon wax naan début li ñuy fay impôt tey muy ñëw ne li ñuy fay dafa néew donc wax yaa ngi bëgg a bare mais mën comprendre député yi li ñuy fay impôt mu mu néew par rapport ak ñeneen yi ndax député yi euh, dañuy am benn statut particulier ci réew mi statut particulier bi mooy euh, dañ ci nekkal askan wi te buñ fi nekkalee askan wi euh, seen liggéey seen mission dafa pour pour askan wi dafa large loolu peut-être mën na nekk ay considération yoo xam ne ñu ñu am statut boo xam ne dañ leen di wàññil impôt yi donc ñuy fay par rapport aux autres ñu am benn régime particulier mooy mais li ma li ma la mën a wax rek mooy kenn jalgatul yoon yoon daal la ñu la ñu def pour leen li ñu war a dagal. Euh, maintenant bu fekkee ne député yi dans leur majorité d' accord ñu ci li ñu war a dagal dafa néew loolu mun nañu changer loi bi mun nañu changer loi bi bu la neexee bu ñu d' accord loolu ñu changer loi bi mais loi bi euh, ni mu nekk tey ni mu tëddee loolu rek la ñu mën a appliquer. Euh, mu nga loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko ci kii di gàcc Gajali Gajali Gassama bu amee nag ñu am leen métti lool ñoom ñoo di liggéeykat yi nekkee fële ci Aftu anam bi ñu nekkee moom la ñu ne metti na ba tax tey ji ñu xëyee hôtelier fële ca Top 30 amal fa ab toogandaay ñaxtu euh, ñenn ci ñoom sax am nañ ci ay kàddu yu ñu ci rotal ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. état bi nag na jël ay responsabilités am parce que li ñu wax dañ ne tey takk nañu ay morceaux yu xonq lundi dinañu taxaw sitting ñu grève de parce que ay responsable lañu xalaat nañu Dakar waaye que ne dañu war a xëy liggéey Dakar waaye dañu war a xëy jàngi élèves yi. te xam nañ ne si fin mois la ñu nekk looloo tax ñu ne dañ leen won ne doole gi mi ngi fii si liggéeykat yi oto yëpp dinañ xonq liggéeykat yi dinañ xonq dañ taxaw ñoom jàkkaarloo suñu deful dara nag suñu deful dara dama ne balaay gàmmu dinañu dégg maa ngi interpellé présidente nag Captrans ay milliards a fa nekk nañu dugg ñu seet lan moo fa am ndax banque mondiale dafa dugal xaalis ñoom transporteurs yi am na si ñoo xam ne temps yi ñi ngi doon menacé je parle sous le contrôle des travailleurs doon menacé ne dañuy génn Cap Trans am na si benn transporteur boo xam ne ba tey mi ngi fi suñu wet nangul ay travailleurs am dugg Cap Trans parce que nee na il reconnaît pas euh, le Cap Trans c'est nag complice la ñoom ak euh, Cap Trans je le dis haut et fort. cinq mille et quelques travailleurs yoo xam ne ñoo nekk si AFTU état du Sénégal moo créé ay disposition pour jàppal à travers la banque mondiale pour ñu créer AFTU. cinq mille yoo xam ne amul kenn koo xam ne mën na la indil un contrat de cotiser wu ñu leen IPRES cotiser wu ñu leen euh, affilié wu ñu leen o niveau de la caisse de sécurité sociale ils travaillent ñi si ëpp dañuy liggéey lu ëpp vingt heures par jour am na ñoo xam ne jigéen ñi da di agressé am na ñoo xam ne dañuy dem sax bay wasin si biir voiture yi. 42 rond point marché jeudi foofu lañ ma agressé te ñoom ñu ngi dégg may yuxu kenn dimbalewu ma bu newul woon gàjjee ya fa nekk kon kenn waxatu ko. ndax kenn ku ne yaa ngi yor sa arme mais yàllaa ci def sutura. kirlaayu Khalifa Sall bi nga xam ne ni mu nañ ko ni ki samedi ju ñu génn tàmbali naa su luy coow ci réew rawatina fu la ci diwaanu Louga ñi nga xam ne ne ay naata ngoom ñu amal nañ ab ndaje di ñaawlu kon loolu yi teg ci nag joxoñ ab njiital réew ñu taxati joxoñ ab baaraamu tuuma njiital réew Macky Sall ne moo nekk kon ci ginnaaw mbir moom lee gannaaw bokk Ousmane Tanor Dieng doolelee waaye daal ko bàyyi mu jàll ngir jàmmarloog moom su fekkente ne bàyyiwul kii di Khalifa Sall dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre mer ak njàqare ngay seetlu ci kanamu pro xalifa Sall yi nekk ci Louga ginnaaw bi ñu teggee mbalaanu kiiraayu seen leader bi ñoom socialiste yi li ñu xamle moo di démocratie sénégalais nanu gàkkal di ci joxoñ baaraam nag Macky Sall ak yenn kilifa yu nekk biir parti socialiste. ci jiixi jaaxa gi nga xam ni seetlu nañ ko taaye ci wàllu yoon ak jalgati gi ci seetlu daal loolu daal wax dëgg yàlla dana teg ay laaj yu bari yoo xam ne danañ ko laaj ci wàllu teqale gi nga xam ni moom lañu ñu war a teqale yi muy pouvoir exécutif bi ak pouvoir judiciaire bi ak pouvoir législatif bi waaye nag loolu it day tey xel ci wàllu indépendance bi nga xam ni ñi ŋànk yoonu Sénégal maanaam am nañ ko ñun de amuñu sikki sakk ne jàpp gi nga xam ni moom lañu jàpp xalifa Sall du dara nag lu dul ab complot boo xam ne nguur gi nga xam ni maanaam nguur gu tële la moom teg na ko muy ab plan boo xam ni dafa bëgg a génne Khalifa Sall ci rang wu candidat yi nga xam ne ñoo war a taxaw incha allah buñ ci yàlla yóbboo ca élection présidentielle 2019 yi nguur gi nag li ko dimbali ci complot boobu mooy ay responsable socialiste yoo xam ne yu tële lañu yu ngiro lañu yoo xam ni seen yitte yépp mooy wut ab loñ lenge bu leen lonk ñun nag dañoo bañ kenn duñu lonk ñooy xuusal suñu bopp militant parti socialiste des valeurs yi doon amal ab assemblée général nee nañu xeex bi moom duñu ko bàyyi mukk bépp citoyen sénégalais boo xam ne bii danga gëm yàlla am citoyenneté di bañ tooñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax man raa minkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadihi aw bi lisaanihi aw bi qalbihi maanaam képp koo xam ne jullit yàlla nga gis ak tooñ daal na nga ko xeex ci sa loxo wala nga xeex ko ci sa làmmiñ wala nga xeex ko ci sa xol loolu nag ci lañuy ñuy senegal Sénégal yépp ngir ñu mànkoo xeex ñàkk dëgg gi nga xam ne mii mu ngi nekk ci senegal ak nooteel gi fi nekk waaye nag ñu ngi profité ci occasion bi it pour woo bépp jullit bépp gëm yàlla bépp citoyen ngir ñu taxaw temm ci xeex ngir nguur ji bàyyi xalifa Sall ba pare it faggul ko lépp loo xam ne ay yelleefam la yoo xam ne yelleefu citoyen sénégalais la. assemblée nationale daal di teggi mbalaanu kiiraayu xalifa Sall ñi ànd ak moom nag di ko naqarlu. ne du lenn lu dul rekk procédure bu ñu amal ngir éliminer benn adversaire politique waaye nee nañu ñoom duñu bàyyi xeex bi fekk dëgg amul ci mbir mi Oumar Kayre Louga Walfadjri jaajëf Omar Kayre ñu ngi sant di gërëm dalal soxna Khady Sylla ci xibaaru bitim réew yi ca Mali ñetti casque bleu yu bokk ci ONU ak benn man malien ñoo faatu niki aljuma ji ñu weesu ci ab opération militaire bu fa waa MINUSMA doon amal ca Ménéka féetee ca bët Saloum bu réewum Mali bu ñu sukkandikoo ci MINUSMA la ca faatagul sa kenn xamagul nu mu toll am na sax ñu ci am ay gaañu gaañu yu métti. ca Burkina Faso président français bi di Emmanuel Macron moo nara amal ab visite tey ca Ouagadougou ak kii di njiitum réew Burkina Faso di Roch Christian Kaboré naka loolee sax nar nañu fa amal ab discours politique africaine bu am solo ci université bu Ouagadougou ci kanamu ay junni étudiants burkinabé bu ñu sukkandikoo ci porte-parole bu gouvernement bu Burkina Faso njiitum réewum France fas yéenewul bàyyi benn laaj moom sax ci boppam nee wax dina waxtaan ci mbiruma développement ci secteur privé bi ak i tamit ci éducation bi. jeexalee ca Indonésie volcan ba ma nga yëngatu ci fan yi ñu tollu tembe ca île bu Bali askan wa nag ama njàqare ak tiitaange loola ba ñu war leen a tuxal rek ndax volcan boobu mën naa tàkk ci seen kaw waxtu wu ne naka loolee sax nag askanu Indonésie amal nañu niki démb ay ñaan ngir rek mën a mucc ci volcan boobu nga xam ne bés bu tàkkee dina indi musiba soxna Roqaye Ndour ci xibaaru bitim réew yooyu lee tàbbi sëg yéen ci xibaaru tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar Ba. Euh, waxee tamit ci ANPS ak SOR wala maire sportif yi nga xam ne leen tànn ci bi. waaw euh, Seydina Omar Ba tey jii lañ leen doon tànn le euh, journaliste sportif yi doon tànn ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci euh, année 2017 yi ñu leen di wax les meilleurs sportifs lii nag gannaaw bi ñu maanaam voté ba pare nag gis nañ ne ballon d'or bi Sadio Mané jëlaat na ko bii mooy ñeenteeli yoon moom mu jël li nga xam ne mooy ballon d'or sénégalais ñu koy wax Boss moom nag mu ngi ko doon xëccoo ak ki nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly Koulibaly ak euh, kii di euh, Kara euh, Mbodj ci wàllu joueur bi nga xam ne moo gën a xarañ ci championnat local bi nag muy Ibrahima ñaan Ibrahima Niane moom la ñu fal joueur bi nga xam ne joueur local bi fii ci Sénégal bi nga xam ne moom mu ngi woon génération foot kon nag Ibrahima Niane moom mooy joueur bi gën a xarañ meilleur sportif bi nag moom nag ca basket ba lañ koy lañ ko jëlee moom muy Astou Traoré moom la ñu def meilleur sportif mbër nag bi gën a xarañ nag mooy euh, rëg-rëg loolu moo euh, maanaam tey jii ca euh, RTS dañ ko doon amal Euh, des ba tey ci wàllu tàggat yaram football championnat professionnel Ligue 1 lañ koy tàmbalee. Seydina Omar Ba Ligue 1 gannaaw bi ñu joué première journée bi ci euh, week-end bi résultat yi euh, nii la tëdde kii nga xam ne mooy jaraaf moom nag daan jàmbaar ñetti bal ci benn NGB ñaari tali moom moom daal NGB moom génération foot champion di ko daan ñetti bal ci dara. Njàmbur am na ndam dinañ ci ñëwaat léegi euh, Casa Sport AS Douane la daan ñaari bal ci dara noonu la Sonacos daane Dakar Sacré ci duelu promu yooyu Stade de Mbour moom Linguère ko fekk dëkkam daan ko benn bal ci dara match GFC Tëngéej nee nañ daal euh, àllarba lañu nar a joué match boobu dina euh, kon nag ñu xaar ba booba waaye nag dañuy dem rek ci euh, Louga Louga foofu Njàmbur démb am ndam ci kaw kii di euh, Mbour Petite Côte ñaari bal ci benn mu nekk lu am solo ci ñoom euh, dañuy def rek dégte leen ki leen di tàggat di kii di Malick Diop ci micro Omar Kayre. waaw du woon match bu yomb ndax préparation bi liggéey bi ñu si liggéey métti woon trop tànk yi xale yi seen tànk yi diisoon na. mais euh, li ñu liggéey feeñ na si première mi bi mu permettre ñu mun a euh, résumer match bi en deuxième mi-temps nañ parce que Mbour Petite Côte aussi moo ñu ëpp préparation ak ay match euh, yu officiel ak parlement beeg yooyu yëpp. donc feeñ na si deuxième mi bi mais mun dékku nañ leen euh, def nañ force ak caractère ba génn ba génn si ak ndam te ndam lañ doon ut ñu ngi koy sante yàlla. mooy li ñëpp bëgg xam nga ñun du ñu nëbbatu équipe yi engagé wu yëpp si championnat bi dañu bëgg a nga ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax donc ñun li ñu engagé wu ay compétiteurs lañ donc dañuy jéem a euh, euh, liggéey le maximum pour jéem a am le maximum donc li ñeneen ñëpp bëgg la ñu bëgg su ko ñeneen ñuy waxul duñ ko wax mais li ñu bëgg lañu bëgg. waaw li ñu war a changé euh, euh, bari na ndax xam nga football moom doo dem ba ne nga ne gongo donc toujours day am loo xam ne danga ko war di dolli si li ngay liggéey donc loolu noonu dañ ciy tey ndam bi du tax ñun ñu euh, ñu am ñu ñu am fu ñu teg suñu bopp am fu ñu yaakaaree suñu bopp kon dañuy nax suñu bopp donc li ñuy def mooy continuer liggéey groupe bu bees dañu am benn xale moo si joué si équipe bu année dernière bi donc yombul woon mais talent wu xale yi permettre nañu ñu accélérer travail bi donc euh, euh, euh, xam nañ ne dara du sotti si mbirum football donc dañuy continuer gëm suñu bopp continuer liggéey ànd ak dal ak tey nga xam ne moom mooy kii di Malick Diop di tàggat équipe Euh, lii di équipe njàmbur bi euh, Mbour Petite Côte euh, moom mi nga xam ne année bi day jouer coupe CAF moom nag dafa bëggoon dooree championnat bi ak ndam waaye nag dañ leen mujjee daan fële Louga ñaari bal ci benn waaye nag ndam daan boobu ñu leen daan taxul nag kii nga xam ne moo leen di tàggat di Badara moom mu am xel ñaar ñu déglu ko ci micro ki nga xam ne mooy Omar Kayre match yaakaar naa ni soo dee xool ñaari xar kanam la am tey parce que première mi bi soo dee xool bi ñu jël ñaari bi presque ñun ñoo leen ko may parce que première bi bi warul dugg góol bi foofu mu taf la foo bal bi jaar ensuite deuxième bi bi suñ défenseur presque moo ko maye créé penalty boobu donc euh, tey jii mais en dehors de ça ñun si première période bi am nañu ñaari yoon yoo xamante ne ay bal bal de bi benn bi sax cage vide la woon malheureusement xale bi xoolul bu baax fi mu dëkk balon bi donc euh, deuxième mi bi nag vraiment soo xoolee tuuti am na ay changement yu bëri quoi parce que la deuxième mi bi dugal nañu benn but mais aussi amaat nañu ay occasion yu bëri surtout benn bu gën a leer boo xamante ni presque jour bi ñaari yoon sax yoo xamante ni jour bi kese ak góol yi mais loolu la ñuy wax ne manqué lucidité donc manqué dal quoi loolu moo ñu jàpp tey ba nga xamante ni xale yi tey peut dañu yàkkamti woon parce que match Euh, début saison la aussi soo dee xool début saison bi lépp taxawagul donc da ngay euh, presque match préparation yi nga am bëriwul donc li si am solo mooy rectifier teel a mën a rectifier aussi pour match yi di ñëw. gannaaw kaaf mu ngi soxal wàllu Ligue 1 bu Ligue 2 sénégalaise. lañ nekkoon. waaw léegi ñu ngi si dig deux je pense. waaw noonu la nag kon nag yow nag yaa ngi suivre bu baax. waaw léegi nag ligue 2 euh, ñu dem ci résultat yi yéego bu Sicap moo daan EJ Fatick ñaari bal ci benn ki di Olympique de Ngor moom Renaissance. Euh, moo ko daan benn bal ci dara euh, maanaam gore ak Duc ndam demul ndam dikkul kenn dugalul euh, dara Kër Madior ndax gi moo ko daan fële ca Saint-Louis ñaari bal ci benn port autonome de Dakar fekki Africa Promo Foot fële ca Mbour daan ko ñaari bal ci benn Kayor ak Etix dañoo témboo ku nekk dugal na benn bal jamono ak AS Pikine ndam demul ndam dikkul kenn dugalul dara. jeexale ko wàllu basket. Mhm. waaye bi si mooy entraîneur yi nga xam doon leen doon doon leen tànn waaw euh, fédération sénégalaise bu basket tànn na nag ñi nga xam ne ñooy wutu maanaam ñi doon tàggat sunu euh, gaynde jigéen ñi ak yu góor yi euh, ki nga xam ne mooy Porfirio Fisac doon espagnol bi moom nag kii moo ko wutu di Abdourahmane Ndiaye. doomu sénégalais nag kon ancien international doon entraîneur fële ca France moom nag. moom la ñu jox équipe nationale bu góor yi mooy euh, Lions yi mu ngi nii loolu nag euh, kii ci wàllu jigéen ñi jigéen ñi tamit euh, gannaaw bi Moustapha Gaye ne moom bàyyi na dootu ti Cheikh saar bii nga xam ne nekkoon na fi entraîneur u Lions yi góor yi moom la ñu jox équipe nationale bi nga xam ne moom mooy jigéen ñi kon nag mu ngi nii waaye nag loolu nag waa fédération ñoom nag bureau bi lañ leen di jox dañ koy jox bureau bi. ñu entraîné ko kon nag waaw defe naa ne ah. sotti na rek waaw sotti na. <laughs> dañu wax ci tournoi monté waaw euh, tournoi monté de 1 gannaaw bi mu jeexee xam nañu léegi kan ak kan moo yéeg ci wàllu jigéen yi saltige bu Rufisque ak équipe bu ISEG sport ci wàllu góor yi Tamba sport ak HLM basket club ñoo yéeg première euh, division. gannaaw tournoi bi nag bi mu amee ki nga xam ne moo yore euh, moo nekk ci bopp fédération sénégalaise bu basket di Babacar Ndiaye moom nag li mu wax mooy euh, maanaam niveau bi euh, niveau de jeu bi am na solo lool te joueurs yi wane nañu ay maanaam li di jàmbaarte kon nag dañuy def rek dégtal leen kii di Babacar Ndiaye ci micro Alkhayri Aïdara. les équipes se sont vraiment de manière sportive léegi mu meilleurs ont gagné mooy Rufisque ak ISEC di leen ñaanal rek ñu ñëw première division pour mën fi yàgg di remercier ñëpp ñu participer ci tournoi bi di jox rendez-vous déwén déwén mais waaw déwén déwén incha allah pour mu teel parce que ren tax moom mooy dafa amoon ay afro basket ak organisation afro basket à Dakar mais niveau de jeu bi baax na dans l'ensemble baax na léegi équipe bi nag il faut ñu renforcer wu mais renforcement boobu nag dafay poser beaucoup de même bu amee moyen mënoo jël gis nga nag réglement wu euh, basket bu Sénégal lool ci loolu la doon euh, tëjee naa Omar Ba loolu fi ruusoon ci wàllu euh, tàggat yaram. di la di la gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Gomis kon mbokk yi ci foofulee ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te moo di li ci yéenekaay yi. Ousmane Sonko yëngalaat na pencum ndaw réew mi yéen a kaay gii Walf yi mu yëkkati keroog yëmale ko ci impôt yi ñuy dagg ci payoru député yi mooy lii yëngal naa tangom yi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar dafa taxaw jàkkaarloog Amadou Ba mi jëwriñ ji dénk wàllu finance ci nguur gi mu daal sàkku ci moom ngir mu wax ko lu tax ñoom député ñu leen di ñetti téeméeri dërëm ci seeni payoor te sénégalais bi nga xam ne ni payooram mu ngi gudd yoon nguurug Sénégal bu bëggee am xaalis xam na fu mu koy jëlee moo gën mu topp ci ginnaaw doomu Sénégal yi nga xam ne la ñuy am weer wu dee doyu leen muy teq ci seen payoor bàyyi député yi nga xam ne nii ñu bari ñu ngi laaj ana ban njëriñ lañ am sunu naatangee ni ba ñu gisee ne fii mu woo xasan na ñoom député yi ànd nguur gi defuñu lu dul gàddu seen gémmiñ di ko yuuxu loolu di dëggal na suñu réew démocratie gi fi amoon adduna gépp daan mi dañu koy koy tappal ab li nguur gi daan nëbb yéen a gii di las ne bu dee maître Madické Niang mi ngi jël groupe parlementaire ba mu kàddu la mu njëkk def moo di dal ci kaw njiital réew mi Macky Sall mu ne mokklu leçon yi ko bàyyam maître Abdoulaye Wade daan jox ndax am réew mënuloo koo liggéey bëgg koo teg ci kaw yoonu yokkuteef te xaalis ba nga ca nar def ci bor nga ko yaakaar bu doonee xaalis boobee ñuy leb sax askan wi ñu ngi ciy gis bopp bu boobaa ñu ne ndaxam waaye dañuy leb ay milliards ba noppi wëlbati di ko def ci ay bolle puudé maître ma dikki ñag ne micro ba xamal askan wi ne lii opposition bi di wax dara amu ci Sénégal xaalis bi ñu leble bu ñu ko ngir def ko ci ay bëlle puy de waaye dañu koy tabaxee ay école ay dispensaire ak ay jumtukaay yoo xam ne dina amal njëriñ askan wi te ci loolu moom ay muri ñi ngi mi ngi sàkku ci Amadou Ba mu leb fi leeg agagoo ci 70 pour wax lebal ba mu neex la kàddu yooyu nag ñu yëkkati saa su ne di ko jëmale ci bari nguur gi amee neexul Amadou Ba mi jëwri ji ñu dénk wàllu gi tax bu mu jëlee kàddu ci ndaje mi dafa ñaan député yi féete ci ku jéggi ngir a wax jooje téye ndax ñoom xam nañu li ñuy def yéen gii di la Soleil ne donte le coow li bari woon na lool waaye terewul budget bi mujjee nañu koy wote mu ngi toll ci ñetti junniy milliards yu teg juróom-ñaar téeméeri milliards ak juróom-ñeent muy ab yokkute wu toll ci ñetti téeméeri milliards ak lu teg ci suñuy ko askan wi nga xam ne ne seen am am taxu koy demee noonu jaarale ko ci bourse de familiale yi couverture maladie universelle ak yeneen ak yeneen yéen wàllu yoon ci nguur gi ànd ak délégation bu takku fas yéene ñori si maraanu kiirlaayu député Khalifa Sall sunu naattango yi ne donte le débat yi tàngoon na lool waaye terewul meeru Ndakaar bi mujjee nañu koy ñori lu ci toll ak ak ñaar fukk juróomi député ñoo ne ànd nañ ci càkkute bu commission ad bi ñaar fukki député ak ñett ne ànduñu si fukki député ak juróom-ñaar ne ñoom dañu ciy mànd yóbbee yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne téeméer ak ñaar fukki député ak juróom ubbi nañu procès muy atteem Khalifa Sall yéen a kaay gi di direct info ni Khalifa jot na ticket koy dugal rëbës yéen a kaay gi di na mbir yi ci mujj gi def nañu lépp lu ñu mën ngir mbir yi bañ a jàll waaye terewul gaañu ñori ko yóbbee Cheikh Bamba Dieye fipp wax ne mbir yi des koy yóbbu ci kanamu juróomi saal di seq ko conseil constitutionnel jéegul rek ci fu mu jeexee ci yéen kaay yooyu la di jéeglu baax a baax kon mbokk yi lii moo nekkoon li fuuse woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug suñu gaal